alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. mbokk yi tey di asalaamaaleykum wa dellu si nañ ci. waxtaan wi nga xam ne moom la ñu di tegal bés bu jot euh, diirab euh, weeru koor bi euh, tey nag fukki fan ak juróom benn ci weeru koor ñu ngi ànd ci li nga xam ne moo gën a fës ci li ci xew fukki fan ak benn ci weeru koor fukki fan ak juróom benn ci weeru koor ci atam ñaareel ci gàddaay gi ci la jullit ñi àggoon ci fi nga xam ne moo di badar loolu nag ngir waajal xare bi nga xam ne mooy xare badar bi ñëwee nag fekk nañ waa Quraysh yi jiit nañ leen ci barab ba yonent bi sallallahu alayhi wa ak ñim àndat dem e, toog ci barab bi nga xam ne moo féetee wàllu càmmooy waaye waa Quraysh yi ñoom ñu ngi woon ci barab bi nga xam ne moo féetee wàllu ndeyjoor loolu nag e, ngir waajal jàkkaarloo bi nga xam ne war naa am diggante jullit ñi ak ñi nga xam ne ñoo di yéeféer yi muy le 17 Ramadan ci fukki fan ak juróom benn ci weeru koor ci atam 409 ci la jullit ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci Cachemire woor euh, seen woor bu njëkk loolu mu ngi tolloo nag euh, ñaar fukk fan ak juróom ci janvier ci atam mille dix neuf gannaaw bi nga xamee ne seen njiit bu ñuy wax Mahmoud Sebkakity euh, al-Khazzouni dugg na ci réew ma nag ngir dugal fa li nga xam ne moo di l'islam gannaaw bi nga xam ne ne waa réew ma yëpp nangu nañoo dugg ci l'islam ci lañ tàmbali nag di woor di des ci weeru koor gi ñu woor ko tàmbalee ko nag ci fukki fan ak juróom-benn ba weeru koor di jeex lu ko jiitu nag boobu fekk ne dugaguñ ci lislaam moo tax wooruñ koon fukki fan juróom-benn ci weeru koor ci atam mille trois cent cinquante deux tolloog premier janvier mille neuf cent ci la italiens yi commencé di coloniser dëkk bi nga xam ne mooy dëkk Libye fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor ci atam mille trois cent quatre vingt deux tolloog neuf février mille neuf cent soixante trois ci lañ euh, rey. ki nga xam ne moo di premier ministre bu Irak boon di Abdul Karim Qasim gannaaw buñ ko attee nag atte bu gaaw a gaaw a gaaw gannaaw coup d'état militaire bi nga xam ne wax nañ ko démb ci ko jiiteen mooy Abdusalaam Arif mu atte ko nag rey ko ci fukki fan ak juróom benn ci weeru ci atam mille trois cent quatre-vingt-seize septembre mille neuf cent soixante ci la Palestine bokk ci mbootaayu Ligue arabe gannaaw bi nga xamee ne euh, Euh, nangu nañ ne OLP di mbootaay bi nga xam ne moo jóg ngir libérer Palestine moom mooy mbootaay bi nga xam ne moo jëmbal mboolem askan wu Palestine loolu moo tax euh, Ligue arabe nangu leen a boole ci mbootaay moomu ñi nga xam ne ñoo gën a àddina nag euh, ci fukki fan ak juróom benn ci weeru koor ci atam sept cent soixante deux tolloog dix neuf septième mois mille trois cent soixante et ci la ki nga xam ne moo di cheikhul muarrixin ñu tuddee ko sëriñ yi bindikati histoire ñu koy wax badruddin ibnu muhammad ci bés boobu ci la gañe woon addina ci fukki fan ak juróom benn ci weer koor ci atam euh, mille sept cent sept tolloog juróom benn fan ci weeru mai ci atam mille huit cent ci la ki nga xam ne moo di xasanayn euh, abu maxluuf di koo xam ne moom moo nekkoon mufti ci réewum Égypte ci la génn àddina ci fukki fan ak juróom benn ci atam euh, quatre vingt cinquante huit cinquante huit ci hijriya tolloog euh, euh, six cent soixante dix huit wala maanaam onze septième mois six cent soixante ci la sayda Aïcha di soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnoon àddina moom nag ñeent fukki at ak juróom-ñaar gannaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àddina bi muy génn àddina moom soxna Aïcha mi ngi am juróom-benn fukki at ak juróom-ñaar ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor ci atam 848 hijriya tolloog ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier 1442 euh, ne nañ ci la ki nga xam ne moo di Ahmed ibn Ali al-Maqrizi moom nag bindkat bu siiw la di bindkat histoire bu siiw ci bés boobu ci la génnoon àddina. bokki ñu ànd ak yéen ci li nga xam ne moo ci topp te mooy ni ñu xàmmee saar yi eh, Medina nee nañ bépp saar boo xam yaa ngi ci gis yaa yoo ladina amanu saar boobu saari yi Medina la ba mu des eh, suratul hajj bépp saar boo xam ne yàlla mi ngi ci wax mbiri farata ak sunna yi ak eh, mbiri atey saar boobu saari yi Medina la bépp saar boo xam ne yàlla mi ngi ci tudd mbiri naafeq yi saar boobu saari yi Medina la ba mu des suratul ankabut bépp saar boo xam ne yàlla mi ngi ciy digle jihaad di ci wane attey jihaad saar boobu saari madina la li njëkk a wàcc nag ci saari madina mooy baqara gannaaw gi ali imran gannaaw gi anfaal gannaaw gi ali imran euh, saar bi mujjee wàcc nag ci saari madina mooy saar bi nga xam ne moo di saari tawba fatiha nag wuti nañ ci ndax saari madina la wala saari makka la ibnu abbas moom def na saari makka la Mujahid moom nee na saari Madina la mbokk yi ñu ànd ak yéen ci ñaan yi nga xam ne moom la ñu tëjee suñu waxtaan te mooy ñaan goo xam ne yonent bi dañuy faral di ko ñaan ci weer koor allahuma ahdini fihi li saalih al amali waqdi li fihi al xawaaija wal amala yaa man laa yaxtaaju ila suali yaa aaliman bima fi suduri al aalamina mbokk yi yéen a ngi àndoon ak seen mbokk bàjjam bu Zeyna wasalaamualeykum wa rahmatullah